de tout le monde ah nee nañu na def déclaration de patrimoine wax xaalisam fan la ko jëlee euh, mais également son parcours jusque là moom ngeen di vanté woo yéen jàpp ne euh, mooy def la différence dëgg la c'est important mais ñoom ce qu'ils mooy qu'est-ce que ça a c'est que voilà lan la indil Sénégal concrètement mais déjà la déclaration de patrimoine gis naa nga intervenir ci ndax mën nga ciy ñëwaat. non la déclaration de patrimoine je mm. a jëlul personnellement man ci ki ma xam les Sénégalais extrapolent te bu defee déclaration de patrimoine maanaam bu yàlla mayee mu faloo les Sénégalais seront y a beaucoup de choses les gens extrapolent mais moi j'ai fréquenté l'homme euh, weeru koor laa nekk du ma wax waxu caaxaan. Mm-hmm. donc xam naa ci dara bu bu amoon milliards yooyu kon moom du am difficulté <laughs> campagne tey mu teel ko boppam. parce que tey nous on vit la campagne avec moom ci terrain bi. mais les accusations des adversaires non non ko jàngatee. non mais c' est normal c' est politique c' est normal. mais man mais man maître na ma benn problème. Mhm. boo demee ba ne diw énarque la. ma ka la fa jiitu jàngal la lan la. ka la fa jiitu. Mhm. jàngal ah, kon kooku ka la jàngal la. te mu nekkoon énarque comme yow jiitu la fa jàngal la kon moom lan la. <laughs> bokk tamit am carrière boo xam ne jaar na administration boo xam ne dara takku ci comme la moom lan la donc la may wax bu élève ba nammee ne day jël nguur te professeur am ba mu jaar jàngal ko fa muy jaar te takkul gisuñu ci moom dara loo xam ne tey parce que li ñuy wax nii ba tey mën naa xëy ne Maître Tine am na xaalis il est riche yow mën na mais que j'amène les preuves de sa richesse que j'amène les preuves de son avoir ñu teg ci table mu mën a ne kii diw dégg nañ fi ba sonn diw sàcc la mais kenn indiwul fi preuve. mais aux yeux de l'opinion mën na mën na leen yàqal parce que ñoom ce qu'ils se disent. waaw mais 15 ans aux impôts et domaines. xam nga tey ñu leen accusé dara. li ñu am gas néew bëriwul alors que Amadou Ba. xam nga tey xam nga tey Ousmane Sonko ci boppam boo xoolee ci vidéo mais il a il a défendu Tahirou Ndiaye. waaw yaa ngi en tant que directeur de cadastre moom moo mm-hmm. kenn nettaliwu ko. il a dit publiquement que il a le droit il y a les fonds communs les fonds communs c'est 300 millions xaw ma ñaata la que pendant sa carrière il a été pas donc war na mën a justifier avoir. mais là on parle pas de millions hein. non xaaral ma la bu nekkee. bu nekkee directeur des cadastres mën na am moom ci ay fonds commun ay moyens ak salaire am yenn yu justifier son avoir xanaa kay chef am ko chefé. Mhm. xanaa kay sama salaire. mënul bokk sama salu patron muy <laughs> parce que man je travaille avec Pierre Atepa Goudiaby tout monde le sait je suis son mhm. mais man sama salaire ak mënta bokk. loolu c'est c'est logique kon nit ki war na mën a am am am bu am am loolu mais je dis que j'extrapole et je suis que suba bu tegee tey parce que à chaque fois qu'il a été dans un poste dañ dem demande OFNAC on a fait des déclarations. mais mbir la de longues personne attend mais man damay ne même jullit boo accusé dara nit ki ma ne Mansour mii am na dara. Mhm. naa génne kayit buy wane ne lii am na ko sinon y a plus y a plus de raison de de kii ku ma neex ma tuumal ko ci dara. mais aujourd'hui ñi ko wax yëpp yëpp yëpp yëpp musuñu la génnee benn bulletin de salaire musuñu génne ab lenn loo xam ne tey mën na justifier ne Amadou Ba am na ay milliards dañ ko wax nii rek fonctionnaire milliardaire mais Abdoulaye Diop nekkoon na fi ministre. Mm-hmm. des finances. des finances. lan la fi am ci xaalis. Abdoulaye Diop dañuy ah, wax dëgg rek Abdoulaye Diop kenn xamul ko dara waaw moom laa lay wax. mais mm-hmm. xamoon nañ ne am na mais kenn mënoon na ne Abdoulaye Diop lii la am te pourtant ñëpp xam nañ ne naatable lañ ne amoon na xaalis. donc aujourd'hui je pense que la loi de l'OFNAC règle ça mm -hmm. la déclaration de finance c'est c'est très facile Diomaye mën na ko wax noonu mais Diomaye n'a pas encore n'a pas encore à part le le le au niveau responsabilité bu mu jël donc budget de 1 milliard pour faire d'argent waaw mais aujourd'hui il n'a pas loo xam ne justifié na ko ci carrière am mm-hmm. tu la carrière de Amadou Ba pendant tout jusqu'au euh, premier ministre et Diomaye qui vient de démarrer c'est complètement bu bu ñu toogee ba vingt ans après ñu mën a xool la Diomaye am ak la am Amadou Ba amoon ci ba ñun ñu mun ko comparer bu nekkee tey ay inspecteurs mun nañu am ay kër jënd ko man je peux vers vingt ans trente ans Cheikh Omar balaa may am sama kër bi ma jënd maa ngi koy soog a am. Mm-hmm. maa ngi ko jëndee puut ki ma ko jëndal sax mu ngi may déglu donc ñàkk naa ko du Amadou Ba moo ko jëndal lu keneen maa ko ñàkk mais inspecteurs yi gis nañu fii aujourd'hui le foncier. ñoom ñu ci am bëri na. ñu ci bëri wax nañ seen kër da ngay dugg balaa ñaar balaa 3 4 5 ans am nga sa kër am nga sa oto takk nga sa ñaari jawar ba ñetti jabar. mais kooku c'est un train ils ont beaucoup d'avantages. kooku c'est c'est c'est connu bu nekkee inspecteurs yi mën nañu am alal boobu nagam nag seen directeur des cadastres ak directeur des domaines waxaguma nag directeur général des impôts et domaines après nekk ministre de l'économie et des finances après ministre des affaires étrangères après premier ministre quand même. mais malgré tout ça malgré tout ça salarié warul warul warul am xaalis en fait maanaam ñu war a am xaalis mooy les entrepreneurs les entreprises un fonctionnaire warul bëri xaalis d'accord un fonctionnaire day warul bëri xaalis ñu supprimer les fonds communs des inspecteurs ñu supprimer ko complètement ñu dindi ko foofu mhm. ñu dindi tous les avantages parce que li ñu jàpp mooy malgré les fonds communs malgré les fonds comme nga xam ne am na solo dëgg la mais ça ne pas d'être milliardaire en fait li ma bëgg am mooy da ngay gis ay fonctionnaires yoo xam ne vie bi ñuy mënee da nga xam ne carrément ñii ils ne se nourrissent pas que de leur de leur de leur de la de l'OFNAC de l'OFNAC pour mën joyanti loolu xool naka lañ ko parce que aujourd'hui l' ci boppam. Mhm. ku muy Amadou Ba keneen ak yeneen ministres yi. waxuñu ko rek ci Amadou Ba yaa yu Mame Boye Diao dans le passé ak ñeneen ak ñeneen. la facilité yu ñu accéder dans les ressources de l' loolu dañ ko war a encadrer parce que ce sont les biens de des de personnes. Mhm. man gëm naa ne tey c' un problème fondamental. Mhm. régime bii di ñëw tu le même problème.